salaam sama gars yi daal leen ak jàmm sama seen YouTube bi ci vidéo bi nag dama leen bëggoon a présenter benn astuce boo xam ne WhatsApp créé na ko bu bees la voilà eh, astuce bi nag lan la eh, dafay tax sa communication gën a yomb surtout soo amee publique benn audience boo xam ne bokkuñu li ñuy li ñuy li ñuy def voilà exemple là eh, soo duggee WhatsApp normalement fii moo nekk discussion bon xaaral ma def nii. Euh, bi moo nekkoon discussion bi moo nekkoon euh, voilà statut et bi léegi dafa am beneen bu bees bu ñuy woowee communauté moo nekk nii bon moom nag nan def par exemple fekkee da ngaa yor école xam nga école soo ko yoree par exemple euh, mën nga am niveau un comme comment dirais nga am nan lañ ko woowee mën nga am licence un licence deux licence trois master un master deux xam nga yooyu yëpp ay classe la. léegi classe bu nekk normalement dafa war a am group léegi nag bii lan la lay permettre def par exemple tey soo amoon benn information boo xam ne école bi yëpp la su boobaay master beeg yëpp ñoom ñëpp ñoo bëgg a jot message mën nga xëy benn communauté boo xam ne soo envoyé message ñoom ñoo ñëpp ñoom dañ koy jotandoo en même temps loolu lu ñuy essayé def pour nga def ko nag da def nii voilà par exemple euh, mën naa ñëw ma ne ko école léegi par ma créé benn école par exemple école par euh, SP voilà comme ça voilà après je dis et et par exemple et cool voilà juste ça voilà c'est juste une description c'est à vous maintenant de voir li nga xam ne moom ngeen bëgg bëgg def ci description ma def suivant hein? voilà soo defee suivant nag fii nii dafa lay laaj fekkee groupe bi existe na ba pare fii ngay bës mooy ci deuxième bi fekkee nag amugoo groupe da ngay créer groupe ba pare après nga door koy intégré gis nga mu wax la pour nga créer groupe bon ñun nag am nañ groupe ba pare ni ñuy créer groupe moom xam naa ne ñëpp xam nañ ko kon jarul ma ciy revenir léegi damay def ajouter un groupe existant fii nii léegi par exemple am na ñaari école yoo xam ne par exemple am naa ko peut-être euh, si par exemple dama bëggoon boole bii nii ak bii xam nga lii ñaari ñaar la bi mat lay def bii mais. loolu du ci problème bi juste dama leen bëgg a war rek nan ngeen def ba regrouper ay ay ay ay groupe voilà ay mën na nekk ay groupe groupement voilà loolu du ci problème léegi tey su gis nga def naa ko pare damay def suivant mooy bii fii laay bës voilà gis nga soo defee nii soo defee ok voilà bi da gis ne mi ngi créé euh, communauté voilà gis nga communauté bi créé naa xaar ma arrière léegi tey su fekkee ne dama bëgg envoyé benn message boo xam ne danga bëgg ñiy jot ko comment dirais groupe 1 ak groupe 2 yëpp jot ko su boobaaye bii laay dem léegi fii su ma fa demee moo bind ko su ma ko bindee ñoom ñëpp ki nekk ci groupe mooy premier groupe bi mooy 11 1 SCP wala mat 1 11 dañ koy jot ñoom ñëpp dañ koy jot fekkee fekkee tamit euh, da ngaa bëgg ci benn groupe kese nga bëgg envoyer message tamit c'est plus simple ngay ñëw fii rek nga bind message léegi group bi kese moom moo koy jot su fekkee bii la tamit ñoom ñëpp kii kii kese moom moo ko jot léegi nag tey fekkoon danga am koo xam ne danga ko fàtte woon ajouté mën nga ko ajouté à tout moment mën nga ajouté ku la neex par exemple pour nga ajouté nit nag par exemple là damay ñëw ci communauté bi nii gis nga mooy ci communauté bi école gis nga fii laay ñëw léegi su ma ñëwee fii lan mooy xew fii mën naa ñëw ma bës invité des membres léegi soo ñëwee fii nii. da ngay def envoyé un lien soo registré envoyé un lien lan mooy xew mooy nit ki da nga ko envoyé pour mu mën a bokk ci sa communauté léegi fekkee tamit nag benn groupe nga bëgg ajouté dangay ñëw ni nga def ajouté un groupe wala fekkee tamit da ngaa bëgg a créer benn groupe mën nga ko def ci lu yomb ngay def créer wala ajouter un groupe existant léegi du ko moom day day soit groupe bi nga ajouter dañuy bokk wala fekkee da am nit koo xam ne nekku ci groupe. nii benn premier bi nii la deuxième tamit mën nga ko invité personnellement moom mu ñëw intégré si sa communauté sans problème nga xam ne message booy mënti jàllale rek moom tamit day bokk ci ñi nga xam ne dañuy jot sa sa message. waa kay jaa ngeen jëf sama gars yi ñu ngi yemale fii vidéo fekkee video bi neex na la ñaa ngi ñaa ngeen partage bi jaa ngeen